mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara di leen baalu àq di baal àq ñëpp di leen ndokkeel ci weer yu tedd yi ñu génn ak bis yu tedd yi nga xam ne ci lañu ñu dëgmal di ndokkeel jullit yëpp euh, di jiital ci nuyoo bi euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha te di ko ñaanal suñu boroom mu yàggal ko fi te wéral ko di am mbégte bu baax a baax ci ñëwaat suñu jotaay bi nga xam ne. dañ koy amal ci weer wu nekk ñaari yoon muy jataayu gàggante ko xam naa li ñu njëkk a def mooy bokk yi nga xam ne ñoo koy topp te di ko toppee fu nekk ci biir réew mi ci bitim réew te soññee bari woon lool ci weer yi jàll nga xam ne amut euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di dogal ngànt leen jéggalu ngir ngànt yi waaye incha allah dellu siwaat nañ ci jataay bi ngir fas ko yéene amale dañ leen ko daa amale ñawaat nañ fii ci Daaru Salaam daam ci kër Serigne Mbacke Abdourahman mi nga xam ne moom la ñuy àndal jataay bi ngir képp koo xam ne ab jullit nga ak foo mën a nekk te yittewoo sa diine te am loo ci bëgg a leerlu soo yónnee ay laaj ci émission bi nga xam ne mooy gàggante ko te daaira Muxaddamatul Xidma di leen ko defal di ko jaarale ci jumtukaayu tas xibaar yi nga xam ne mooy MKTV muy Muxaddamatul Xidma TV ak GMT ak yi ñi nga xam ne ñoom la lëkkalool ci wàllu support muy jàll ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp euh, bala ñoo tàmbali rek ñu fàttali numéro bi nga xam ne képp koo xam ne am nga laaju diine boo ci bëgg yónnee ngir mu mën laa jariñ fii wala ci sa diine wala ci sa mbir yi àddina mën nga ko yónnee ci 78 689 28 28 78 689 28 28 xam naa dañ ko avisé ci écran bi ngeen gis ko kon su ko defee sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la dalal euh, di ñaanit suñu borom gën laa defal tawféex ak taysiir ba li nga yéenee liggéeyal sëriñ bi ci sa xam-xam euh, nga gën koo matale kon sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ Abdul Ahad maa ngi lay nuyu di delloo nuyoo di nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel jataayu xam-xam bii di leen siyaare di leen ndokkeel bu ñu siyaaree sunu kilifa Cheikh Mahamadou Mountakha ñaan sunu borom gën koo sàmm gën koo dëgëral nuyu mbokk yi daayiratu Muqaddamatul Xidma te bu sa alimaam ne ci bopp bi siyaare leen sargal leen ci taxawaay yu am solo yi ci xew-xew yu weesu ak yëngu yi xew yépp ñaan sunu borom dafa ñu tawfeex dafa la ñu tey siir ci liggéey yi. di ndokkeel bokki jullit yëpp di leen sargal nag ki yu weesu yëpp ci màggal geeg gàmmu geeg taxawaay yu am solo yi waaye di fas yéene àndaat yéen ni nga ko waxee ci jataay bi nga xam ne jataayu laayante biir la dimbalante ci sunu diine ji nga xam ne sunu borom moo ñu ko andil tënk ñu ci Mawlaana Cheikh Ahmadul Xadim it ñëw leeral ñu ko naq ñu ci ñaan yàlla defal ñu ci tawféex defal ñu ci jàmm defal ñu ci ak tayseer ñu leen di siyaare baax seen wulaat di siyaare nga xam ne rek seen bu xaadir ñoom ñu ànd ci liggéey bi jërëjëf sëriñ Mbacke Abdourahmane euh, jërëjëf it sëriñ Abdou Khadri mi réalisé émission bi ak sunu caméraman sëriñ bàcc ba ñi ngi euh, ñaanal tamit di bàyyi xel sunu bokk jullit yi nga xam ne ñi ngi ci ay jafe-jafe moo xam ñi nga xam ne ñi ngi ci biir réew mi te mbënd mi xaw leen sonal moo xam ñu nekk biir Touba wala ñu nekk ci yeneen dëkk yi ci des ñu ngi koy dégg fu mel ne Bakel ak dëkk yooyu yëpp waaye sunu bokk jullit yi nga xam ne ñi ngi ci bitim réew fu mel ne ñi nekk Palestine wala ñi nekk Liban te nekk ci ay jafe-jafe eh, am noon di leen sonal ñi ngi leen di ñaanal sunu borom gàttandu leen ci tawféexam ak ndimbalam ba génn leen ci jafe-jafe yooyu ba may leen ndam ci li ñuy def su ko defee sëriñ bi kon suñu laaj bu njëkk mbokk mi dafay laaj mu ne ndax dana daggan ci jullit bi nga xam ne dafay dund ci réew moo xam ne eh, comme fu mel ne Europe wala yeneen réew yi Amérique wala fu mu mën a doon nga xam ne waxtu gee dafay yeex maanaa euh, bala ñu julli gee daal day fekk ñoom seen waxtu tëdd jot mu ne ndax dana dagan ci ñoom ñu bàyyi ba euh, tëdd nelaw ba teel a yeewu ngir mën a julli gee njëkk ñuy julli euh, suba ma maanaa maanaa nga xam ne danañ mën a julli gee baxdal maxrib maanaa ginnaaw timis daal bu jotee bala ñoo julligee dafay yàgg ndax dana dagan ci ñoom ñu mën a nelaw ba teel a yeewu ngir fay géej doo ko jullit fajar jërëjëf sëñ Abdoul Ahad waaw bu fekkee ne dégg naa mbokk mi li mu bëgg a laaj mhm. dëkk yi nga xam ne safax dafay yeex a fàddu mhm. na am na dëkk yoo xam ne dana mat ay ñetti waxtu suñu dëkk yi nga xam daanaka waxtu du ko mat mbaa lim mu ci tegal du bari am na yu ko gën a néew am na yu ko ëpp am na dëkk yoo xam ne dañuy wax ne léeg-léeg mu yàgg lool am ci yoo xam ne sax daanaka safax du fa jógee day jokkaloo ba fa asamaan set loolu nag li ci boroom xam wax bépp dëkk boo xam ne jant dana fa so di fenk dañoo war a tënk ci waxtu yi ndax waxtu yi suñu boroom moo ko tënk inna salaata kaanat alal muminina moo mawquuta dañ ko wutal ay waxtu yoo xam ne kenn sañu ko julti waxtu wu jutul dul sabab yi tax xëy na mbokk mi nag lu mel ne bu fekkee daa jubloo wax moom bu sëlmalee timis tëri bu ko leeree ne waxtu wi du gaaw mën na fee nelaw xëy na dana yeewu ci biir muxtaar bi mën na julliwaat loolu sañ ni ki sañ naa tëdd nelaw bu yeewoo la na bu ko leeree ne dana yeewu njëkk fajar loolu ci waxtu darur yi waxtu ngànt la su ci jullee ngir ngant loolu julli na ci waxtu mu ci bàkkaar xëy na nag bu fekkoon ne daa jublu bëgg a boole nga xam ne day jul timis ak gee door a tëdd ngir ne coono bi mu koy jural loolu ci ma bu ma la ñoom li ci lëng mooy duñ ko sañ donte nag am na ay benn benn ñu koy wax wane ne ne coono bi ci nekk mën naa tax nit ki boole timis ak gee hmm. waaye li ñu xam ci masab bi muy li lëng mooy ab taw mooy tax ñu sañ a boole timis ak gee wala lëndam gu ànd ak taataay yoo xam ne kenn am foo jaar hmm. bu ko defee nag kon moom bu fekkee mën naa sëlmal timis dem tëri nelaw ci guddi gi dana yeewu mën a julli gee ci waxtu fekk fajar jotugul ndax fekk fajar jotugul rek moxtaarum gee bu jeexee it daroru ji jeexut hmm. te daroru yi mooy waxtu ngànt ñi am ngant ñoo ko moom bokk na ci ngant yi ngay nelaw bu bu julli woo ko boo yewoo ci waxtu wu julli du am bakkar bu dee lu mel noonu sañ nañ ko baax a baax sëñ waaw loolu dafa mel ne su fekkee da ngay faral di dem Europe da nga gis ne géej gi léeg-léeg dana dem ba minuit moyen wala minuit sax ci yenn dëkk yi te am na ñoo xam ne mën naa am danañ liggéey danañ yeewu 4 heures du matin wala 3 heures du matin euh, kon ñu dana dagan ci ñoom bu fekkee nelaw gaar na leen buñ jullee timis ba noppi ñu reer nelaw mhm. teel a yeewu balaa moxtaar mee jeex wala daruri ji sax ah, wala daruri bi ci biir daruri bi nelaw ngant ci ngant la waaw waaw loolu jàpp naa ne kon euh, lu am solo la ci bokk yi dund Europe dégg ko ndax léeg ñoo xam ne dañuy toog bay jeexu ngir xaar gee hmm. te fekk loolu kon loolu loolu sëñ bi euh, sew sew bu am solo la jërëjëf euh, kon bokk mi laaj boobu leer na beneen laaj bi ci des mooy kii def ne moom daal daf doon waxtaan ak soxnaam ci téléphone Euh, ba mu yàgg am lu génn ci moom mu ne ndax li génn ci moom su doonte génn na te àndut ak bànneex ndax dana war ci moom muy sangu wala déet wala ndax su àndeek bànneex day war day waral ci moom mu sangu waaw sëñ Abdou Lahad xam nga ngir sangu war nit moom daa am yu koy waral mhm. bu yéen lu génn man ni yu mu génn ci nit ci nelaw bu doon nelaw gént di jaxasoog soxnaam yow gis man yu sangu war na ko bu dee ci yeewu la man yu mu génn ànd ak bànneex bi mu baaxoo àndal day waral sangu jaxasoo góor a jigéen day waral sangu saa bu awray góor bopp awray góor tabbee ci awray jigéen sang war na ko danañ ci yokk ñaar nit bu faatoo danañ ko sang ak yéefar bu dugg ci lislaam te fekk mu nekk baaleex sangu da koy war léegi nag li génn ci moom bu fekkee man yu la day waral sangu moom man yu nag daa ni mel buy génn it am na melokaan bu muy génne boo xam ne danañ xam ne noonu lay génne bu dee loolu moo génn ci moom sangu war na ko bu fekkee nag yeneen ndox yi génn lu mel ne mos moom nit ki mën nay xalaat wala muy xool wala muy laal ba tax ndox génn ci moom ndox moomu nag jàpp lay waral ak raxas awra ji raxas awra jëpp bu na mu jàpp ak fa yé yéeréem taqit mu fóot ko loolu waral sangu faaw ñu xam nag yooyu lu ci doon uh-huh. fekkee daal man ni bi génn nga xam ne day génn di jañoo di ànd ak bu mag baaxoo àndal day waral sangu waaye man ni sax nag mën naa génn ci nit te du waral sangu uh-huh. mooy bu génn te àndut ak bànneex dañ ko misaale nit ku doon jaxasoog soxnaam bi mu nappee mu dem sangu ci bi mu sangoo ba noppi rek jékki-jékki yëg ne ndox mi génn na te bi muy génn ëntog benn bànneex loolu du waral muy dem di sangu jiwaat du jar muy sanguwaat day dem waxaas ko te dem jàpp hmm. wala nit ki aw moom di xasan mu di ko wokk wokk neex ci moom ba mu génn man yi hmm. loolu du bànneexub sëy bi man yi baaxoo àndal yooyu jàpp lay waral waaye du waral sangu hmm. waaw jërëjëf boobu leer na mbokk mi Euh, kii dafa dafay laaj mu ne naka la ñuy ràññee muxtaarum suba ak duruur yi ak duruur yi suba maanaa ah. euh, daf mel ne dolli na ci beneen laaj tamit maanaa ki nga xam ne day fay julli maanaa te tuddut yéene ji ci làmmiñam euh, ne moom dafay fay julli mu ne lan mooy àtteb julli googu waaw bu dee muxtaarum suba xam nga suba ci masabu Malik ñaari wax moo ci am ndax am na daruri wala amu solo nañ jëlee ci imam malik ñaari wax yëpp waaye li ci boroom xam-xam mosa bi mujj yi jàpp mooy am na am na muxtaar am na daruri moom la sëriñ bi wax ne min saadiqil fajri ilal isfaar yi bu fajar dëgg-dëgg jotee ba isfaar am loolu mooy muxtaar isfaar nag niñ koy xamee mooy boo nekkoon ci mu néeg nga génn ci ëtt bi bu ñuy nodd fajar ci waxtu yi subay jot day lëndëm soo demee ba mën a xàmmee koo seen lu tollook ñaar fukki mètre xàmmee ko. xàmmee kanamam xàmmee xam ne kii diwa loolu mooy isfaar bu leeree. li hmm. tàmbulee ci isfaar nag ba jant bi tàmbulee fenk mooy daruri yi hmm. na moxtaar am daruri ci noonu ko jàppee bu dee nag euh, koo xam ne da doon fay suñ dëkk yi ami làmp yooyu noo koy natt ci waxtu yi maanaam dañuy xool dañuy xool foo xam ne làmp takkut day fay làmp yi waaye mu ne su ko natt ci minutes yi maanaam diggante bi ñu noot. waaw ah, ndax loolu du yomb ndax ñaaree léeg-léeg du tolloo. Hmm. ndax fii ne mi ngi mel ne waxtu yi rek fi mu ne léeg-léeg ni ñu wax léegi ci ci ci safaxa yooyu. Hmm. am na ay waxtu yoo xam ne day gàtt am yoo xam ne day xaw a gudd. moom du neex a natt ci ne nangam minute. fàddu safax tolloowul ci àddina bi tax. tolloowul ci àddina bi. Hmm. même ci benn barab léeg-léeg mu wuute. ci faslu bi ak faslu bee. léeg-léeg bu jamonoy jamonoy chita wala jamonoy xarif day day day day wuute. bu dee laaj bi ci dopp nga xam ne day wax ne moom daa da doon fay julli waaye waxut ci làmmiñam day fay yéene sëñ Abdou Lahad ñu bàyyi xel ne du lu ñuy tudd ci làmmiñ allahuma koo xam ne moom bu ko waxut ci làmmiñam day jàpp te loolu xeetu xeetu wër si demee noonu daal yéene ci xol lay ne yoo xam ne tudd ko ci làmmiñ gënut du ci koo xam ne ngànt la ci moom kon bu jàppee ci xolam ne moom kat julli wutoon tisbaar ba waxtu wa jeex na muxtaaram ak dara réeji mu jàpp ci xolam ne waxtu yi mu ju tisbaar ji lay fay loolu mooy loolu mooy yéene ji soxlawut mu koy tudd ci làmmiñam jërëjëf bokk bi dafay laaj ne moom dafa bokk ci ab teg maanaa teg yi tontine yi ñuy def moo xam ay góor a ko seq wala ay jigéen léegi nag euh, kenn ku nekk danañ la teggil waaye ki nga xam ne moom moo yor teg bi moo yor kees gi daal dañ koy nattal lu tolloog ñiy teg li ñuy teg muy muy muy muy muy muy ak fayam nga xam ne day day yamoo day yamoo ak ñiy teg mu ne lan mooy atteb alal jooju nga xam ne moom mi ngi koy jël te tegut waaye moo leen gardeel teg bi tax moom it mu amub loxo boppam boo xam ne moom du ca teg ndax alal jooju dina dagan ci moom xam nga sëñ Abdul Ahad julli lislaam lislaam daa wax ne al muslimuuna ala shurutihim hmm. ay jullit lépp lu ñuy liggéey dëppoo ci sartem jaar ci yoon rek sañ nañ ko moom dañ koy liggéeyloo hmm. mooy dajale teg yi su matee mu jox ki war a teggi hmm. loolu liggéey buñ juboo ci ne ko dañ lay fay liñ lay fayee nag mooy buñ demee ba teg bi jeex ñëpp tegal la muy sag fay mooy mhm. kon dañ koo fayee ab liggéey mhm. dañ koy liggéeyloo bu nappa fay dara nekk dugg ci teg bi daal buñ la leeralee loolu moom ndax ñaari yi dañu xam ne am na ko ko yore te buñ dee fukki nit ñu ne waaw fukki waaye waaye nag fukki teg ak benn lañuy ñuy teg mhm. ndax benn boobu loxo boobu kii yor teg bi di ko jox nit ñi di leen yit seen di leen woo téléphone ak di jokkoo ñoom ak dem ak dikk moo ko moom ñu juboo ci day daal dagal waaw jërëjëf sëriñ bi kii euh, mu ne dafay dafa dégg ñu ne ci lu njëkk euh, julli juróom dafa doonoon ñaari rakka mu ne ndax loolu lu wér la wala de waaw sax na ci xadis ne bañ njëkkee farataal julli ñaari rakka ñaar rakka la woon mhm. loolu ci njëkk gàddaay gi xadis bi saxal ne biñ gàddaayee nag ki lañ saxal jullik teew muy ñeenti rakka mhm. ñu tukki nit ki sañ a wàññi mm-hmm. mais cosaanul julli ko ndey par ñaar rakkaa la woon dañ koy door a digle waaye biñ gàddaay ñëw Madina mm-hmm. ci lañ digale ñu julli ñeenti rakkaa tisbaar mm-hmm. ak takkusaan ak gee naka jëkk suba bu ñaar rakkaa la naka jëkk timis ñetti rakkaa la ko yi wax ni diggante tisbaar ak takkusaan ak gee la woon yoo xam ne ci njëlbeen ke ñaar ñaar la woon waaye bi yi doo islaam lañ ko jox ndigalul na ko def ñeenti rakkaa may ko ruxsab buñ Euh, julli ñaar rakka ci tukki bi kon sunna la euh, su nit ki tukkee moom tisbaar takkusaan gee mu di ko julli ñaar ci sart yi yi daje mooy bi mat doon doxub yoon xam ne ci li ngay nekk lu jaadu la doonu koy mu yàlla ci ab tukkeem bi ci desit mat na juróom-ñaar fukki kilomètre ak ñaar fa mu jëm uh-huh. fa barab ba mu nekk du fa dox ñeenti fan amu fa gu dëkk bokk bokk ci ay këram amu fa soo xam ne wéet naa moom kon mu di ko julli ñaar rakka sunna la waaye eh, kon cosaan la ñaar la woon waaye ginnaaw bi ndigal la ndigal ki digli woon ñaar moo digluwaat la ñeent jërëjëf sëriñ bi laaj boobu leer bokk bi dafay laaj mu ne eh, eh, ki nga xam ne maanaa dañoo dafa dafa tawat ñu jël ci moom mànni yu ginnaaw bi mu mu nelaw mu digle woon ne mànni yu moomu nañ ko ko defal ci jigéen sàngam yàlla dogal doom sosu ca mu faatu mu ne ndax doom jooja danañ ko limaale ci doom yi dond wala déet sëriñ Abdul Ahad ab sëy saa yu borom kër ba faatoo sëy ba tas na bokk ci ñi xamante sëy bu tas hmm. borom bu faatu ca saasa fii ni nii nit bu amoon soxna mu faatu tey laata ñu koy mën naa takk rakkam hmm. tas na moom kon sañ naa takkaat keneen koo xam ne mun leen woon boole hmm. sëy bu xasee tas nag kon doom mënta sosu yu ñuy yëgal ci ci ci góor benn bi ci desit loolu ñu ngi koy wax nii waaye man yu ñaaree mënta gis ngelaw ay secondes yu néew la ko mënta tiddeewut fi ne yi tuddee atfaalu anabib pexe yi ñu koy defee man yu moom oxy ngelaw du ko laal fenn tubaab yi ci xarañ nañ ñëpp daanaka ñaare dañu leen di nañ koy liggéeyee waaw koy liggéeyee ngelaw du ko laal fenn mhm. waaye upp ko ngelaw uppee diir bu gàtt moom mu dee lu tamati njëriñ kon daanaka denc ko bu ñu jàpp ne war naa mën a kenn mën na ci ëmbat loolu lu jafe la bu ci si bu amoon nit nag nit bu xasee faatu boobu say tas na. bu góor gi bu faatoo. bu xasee góor gi faatu moom kee nekkatu soxna. Hmm. léegi nag doom ju soosu te say amut mu ngi su hmm. ko jàppee doomu yoon. bu ñu ko jàppee doomu yoon. mënta nekk doomu yoon. Hmm. jërëjëf euh, mbokk mi dafay laaj mu ne yan mooy xeeti at yi ak ndax am na foo euh, ñaan goo xam ne des na ko jàng njëkk nit ki di dem di aj njëkk muy dem makka Euh, mu ne tamit ndax foofa it warees na faa jàng xasiday sëriñ bi ci biir aj gi waaw xam nga aj màkka ñetti xeeti aj ñoo am mm-hmm. ajug ifraat nga xam dangay dem aji màkka aj kese mm-hmm. yow bi ngi armal aj kese nga yéene mm-hmm. ci bu Malik loolu mooy li gën ñoom liñ jàpp it mooy moom la yónent sallallahu alayhi wasallam defoon am na ajug xiraan nga xam da ngay boole aj ak umra maanaam yow bi nga yéene dangay ngay yéene aj umra te jiital umra ci sa yéene nga xam ne jëf yi ngay def ba ngay tawaaf tawaafu aj la ak umra bi ngay dox sa maro aj ak umra ko des mooy tamattu bi ngay dem màkk nga yéene umra ginnaaw ñu waree maanaam li tàmbalee korite bu jëm tabaski nga aj màkk nga dem def sa umra toog fa nag ba aj màkk fekk la fa nga armalaat lu mel ne tey ñii dem màkk te njëkk dem léeg dañuy dem bu defee umra solaat seen yére bañ na tey la juróom-ñetti fan ñu war a dem Mina ñu armalaat loolu mooy mooy mooy tamattu ki def tamattu ak ki def xiraan te dëkkoo Makka da ngay tuur deret waaye bu dee ifraat tuur deret waru ci ñetti xeet ajo yi mu am yëpp baax na ndax lu ci nekk ndi ndigal la euh, léeg-léeg nit am yu am ñoo xam ne waxtu yi ñu am yéey gën ci ñoom waaye ci mazhab Maalik moom ifraat moo gën ci xeeti aji mmh. ñetti xeet ajo yi ñu am bu ko defee nag euh, ñaan gu ñuy ñaan ngir njëkk aj moom xanaa ñaan yàlla ginnaaw ak jaamu yàlla la mhm. ëpp solo mooy jëf ji sell yàlla nangu ko mhm. kon jaam bi war naa ñaan yàlla yombalal ko aj gi nangul ko ko ndax lu yàlla yombal du yomb te jëf ju metti la joo xam ne laaj na wér yaram laaj na alal laaj na coono kon ku ci dugg génn ci rek ndimal su borom kon ñaan yàlla mu yombal ko baax na ñaan yàlla it mu nangu ndax aj gu ñu nangu moom it ay salaam leen ak payam mooy aljanna aj gu ñu nangu amut ak paygul aljanna kon ñaan yàlla nangu ko yooyu jàpp naa ne baat yi ko mën a ñaanee baax na bu defee nag euh, ci biir ajit bari na ci waxtu ñaan rawatina bu ñuy wër kaaba gi lépp loo xam ne euh, aajoy àdduna ak alaxira la jul bi sañ na koy ñaan ñaan yëpp baax rawatina ñaan yi nga xam ne li ñu tuddee al adrien ma asura jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te xoolee mbindi sëriñ bi li ci ëpp jëm ci ay ñaanam yooyu yooyu la dajale li ci ëpp ñaan yoo xam ni sala moo ko doon ñaanee sëñ jël ko ay ay way ak waxin noonu te nit nitu yàlla ak aw ñaan yi moo la gën a xam sa borom gën la koo jege kon gën laa xam ni ñuy waxee moom kon jëf jariñoo ñaan yi lu am solo li ci mat bàyyi xel rek mooy ñaan dafa ami teggin ami sart faw jàmm bi it foo ñaan nga bàyyi ko xel li ci jiitu mooy ak ñaan ixlaas ko lal yàlla kooko booleel nee na soxlawu mu bàyyee ana axna suraka la maa gën a doylu ci ñi may booleel ñëpp ku ñu ma booleel bàyyi na ko te xam nga bokkaale wolof da koy tudd gën koy jëf jawaay lu sew la te yaatu Seydu nee na riyaa ci bokkaale la bokk muy ngistal li ngay def war koo def ngir yàlla nga di ci bàyyi xel ku dul yàlla sëriñ bi nee nañu su fekkee ne li ngay def ci yàlla di ko def ngir yàlla yaa ngi ci bàyyi xel nit ñi yaa ngi geesu nit ñi yaa ngi ngistal loolu moo ko jàngale képp koo xam li ngay jëf ngir yàlla yaa ngi ciy bàyyi xel nit ñi yaa ngi gisal. moom moom léegi bëgg nit ñi gis ko. Mm-hmm. wala bëgg nit ñi yëg ko. maa daal yaa ngi bàyyi xel da ngaa lii ak jaamu yàlla goo xam nit ki da koo def sa borom bi la bind mi ngi lay ngi lay gis nga jiital sell googu bi ci si it mu ko santaanee nga defe ko noonu borom bi moo ñu wax ne ud'u rabbakum tadarruan wa xufiya mm-hmm. bu ngeen ñaanee nañ ànd ko toroxlu dañ ànd ko woyofal seen bopp tëy seen borom gi ngeen jàkkaarloo di ko ñaan bi ci des nag ngeen suufel suufel seen kàddu. loolu bëri na ñoo xam ne téléphone yi mën na yàq seen ay daa bokk ci teggin ñaan. Mhm. waaw yooyu nag daa mat a bàyyi xel ci barab yëpp ci waxtu yëpp jàkka yeeg fépp. Mhm. jaam bi saa bu ci barabu yàlla bokk yi bu ñu bàyyee xel ku mel ne kilifa gu tedd Serigne Hassan Bousso radiyallahu anhu. Mhm. maa ngi ne mu jàkkaarloo Kaaba ga rek. la tàggoog sa daan li ma la li ma la dàkk daan ko. Hmm. yëg-yëg boobu lañ bëgg jàmm bi bu ci àggutum di ko jéem. nga xam ne boobaa dangay teg fële àdduna xam ne sa boroom bi la moom dafa la tawféex ay nangami milliards nit ay ñi ñu néew ñoo ci mën a am ñëw foofa ay nit dund na ba faatu lu baax lu def nañ koy mënuñu aji màkk yàlla dafa la tawféex jooju nga dem ba foofa kon nga sóor loolu jiital yàlla jiital sellal ngir yàlla du nangu jëf ju sellal hmm. wa maa umiru illa li yaabudullaha muxalisina lahu diin loolu sëriñ bi moom lañ yàgg di ñu jàngal loolu jàpp naa ne lu mat a bàyyi xel la ci barab yëpp ak waxtu yëpp nag mag ñi bu ñu masaan di jaam aj màkk bu ñu demee amuñ soxla ci lu aj màkk gi bu ñu ba noppi nag ba lépp noppi ñu dem fa ñuy nataale daal di solaat seen yëre armal ngir souvenir waaye jamono yi ñu jaamu yàlla moom tëluñ lu dul ñaan ak toroxlu seen borom ndax barab boo xam ne kaaba gi boo jàkkaarloo moom loo ñaan yàlla yàlla nangu ko boo ko dee wër loo ñaan yàlla yàlla mébét moo xam ne nit judd na di mébét di mébét loolu ba faatu te amu ko yàlla dafa la ko boo ko demee war nga yëg yëg yëg boobu jàpp naa ne euh, mbokki jullit yëpp war nañu bàyyi xel loolu mm-hmm. waaw ndax euh, màggaay ga lam laaj moom loo ko jox ci sellu doy te sellal nag mooy laltaay ji suñu laaj masha allah labiri googu moom képp kuy dem ci barab yu tedd yi ak bu mu a doon moom war nga koo dégg waaye dem bay wër kaaba ga wala nga dekk ci barab yonente bi di seen sa bopp ak a film sa bopp loolu jàpp naa ne teewlu moom Euh, xaw naa des tuuti. kon loolu bokk yi lu am am solo la loo xam ne bokk yëpp war nañ koo bàyyi xel. Hmm. kon leer na kon sëñ bi xam naa ñu jox la nga tàggatoo ak bokk yi. Euh, mel na ne jotaay bi jeex na incha allah. jërëjëf sëriñ Abdou Lahad xanaa dellu di sant mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi yittewoo ci diine ji bay yónnee seeni laaj ñaan yàlla dafal ñu tawféex dafal ñu taysiir dafal ñu dégg ak topp. Euh, di leen ndokkeel yéen itam di leen sant ci taxawaay am na solo lool ndax aadama yàlla da ko tënk ci diine lépp loo ci yëngu rek daa war a tegu fastaqim kama umirta mooy li yàlla waxoon yonent bi alayhi salaam jubal waaye nag niñ la ko sante kon nag luy tax nit ñi mën a teg seen xam fi ñu teg seen tàng lu baax la liggéey bu am solo la yal na ci yàlla dafal tawféex dafa leen ci ndimbal gën ko barkeel barke sëriñ bi ñu ngi siyaare ñëpp di baalu ñëpp ak wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Mbacke Abdourahmane yow tamit ñu ngi lay ñaanal suñu borom may la wér ak gudd fan ba li nga liggéeyal lislaam ci xam-xam ak laabir gi nga ciy laabiree jullit yi suñu borom gën laa kàttanal ba nga gën koo man ñu ngi jaajëfal tamit bokk yi nga xam ne ñoo ngi doon topp ci seen seen MKTV ak euh, GMT muy Grande Mosquée de Touba muy seen yooyu nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma moo ko taxawal ngir di laabiree bokk yi ci seen diine ak ñi nga xam ne ñu ngi koy jël di ko jaarale ci TikTok yeeg Facebook ak fépp rek ci support yi nga xam ne mi ngi aju ci daayira Muxaddamatul Xidma yëpp di jaajëfal bu baax tamit euh, sëñ Abdou Khadir Bousso mi doon réaliser émission bi ak sëriñ Bàcc Ba mi nga xam ne mooy suñu caméraman di leen jox dig daje di leen dig ab daje ci suñ beneen jataayu gàggante ko incha allah mbokk yi ñu fàttali leen tamit ne képp koo xam ne bëgg ngaa yónnee ab laaj mën nga ko jaarale ci numéro bii di 78 689 28 28 78 689 28 28 ñu ngi jaajëfal Serigne Ablaye Lo moom it ci jàpp gi muy jàpp ci émission bi mbokk yi kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam